combat Diassy Peulh baa ngi noonu Diassy meb na mais demul eh waaju daw na jël Diassy Diassy bañ mu ngay attaqué Diassy de jël na tànk Diassy war na ko ndam eh ay la xay la door ci suuf waa kii kan la nii waa mais booy kii waaye waaye gars yi nee nañ moom mooy Moustapha bu Jirnda yàgg naa dégg turam mais man li ma ci ili bariwul Moustapha Ndouba ba eh Ndouba bu waa si kenn waay Moustapha eh waa si ne Ndouba bu tamit eh eh eh, eh. ale hayte waru kiin doole de